gërëm leen ci seen àndina ak le buzz du web la chaîne des leaders Senbuzz TV mbokk yi ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax ci seen àndina ak suñuy programme di am mbégte ci fas yéen am jotaay ak koo xam ni certainement ñu bari ci Séné yi ñu ngi laaj situation am di laaj ndax tane na wala tanewul Baye Fall Wiri Wiri xam ngeen ni gëj nañ ko gis ginnaaw bi nga xamee ni suñu borom defoon na am tawat bu ko daloon lu aju ci ay bëtam mu demoon fële ci Tunisie di ko faj ngir waxtaane na fan si soppe yi le grand Baye Fall xam di la war a rédaction Senbuzz seet si la disponibilité bi. ndeysaan kontaan naa baax Thiombane yow sama frère nga sama rak nga maa ngi nuyu Sénégal yëpp sama fan si waa àdduna bépp ku ma bëgg nekk rek maa ngi lay nuyu di la bëggee mm-hmm. di siyaare ñëpp waaye di nuyu ñëpp maa ngi nii nag dem naa Tunisie ba ñëw maa ngi nii. d'accord waaw alors Baye Fall xam nga ni jamono bi nga xamee nii annoncé nañ ne say bët gàllankoor mm-hmm. dafa am gàllankoor bu la ci daal sénégalais yu bëree bëri nekkoon nañu njàqare ñu bëri aussi mm-hmm. euh, doon euh, bokk ak yow naqar bi nga demoon Tunisie pour faju ji lan la ñu mën a jàpp jamono ji j'espère que am nga tane bu baax a baax wala. waaw waaw dem naa Tunisie faju ji mais euh, wax dëgg yàlla faj nañ ma fa dox nañ ma traitement dëkkal nañ ma fa baax yóbbu nañ ma ci ay docteur xool nañu ma. def naa lépp ñibbisi naa waaye wax dëgg yàlla tane laa def mais wéraguma hmm. waaw. par rapport ak yaakaar bi bi médecin wu Sénégal yi amoon fii ba yóbbu la Tunisie. waaw euh, yóbbu nañ ma daal Tunisie dem naa ña fa médecin xawaat fa tane. Hmm. te yaakaar sama yaakaar xam naa kenn mënu leen fa. xool nañ ma daal waaye médecin bi ma mujj xool daal dani ma du jël risque opéré bëri waaw loolu daal la ma wax. bindal nañ ma nag fa bindal nañ ma fa ñaari façon weer ba jënd nañ ko indaale naa ko bu bu lu lu bokkul ak weer yi ma takk nii. d'accord waaw alors ànd ak ni euh, xëy na médecin wu Sénégal yi ñoom dañ amoon yaakaar ni waa Tunisie ñoom ñoo la mën a faj yow bi nga demee ñoom xamal nañ la. Euh, pour mm. faj la tamit risque lay doon ci ñoom. waaw xam nga xam nga euh, boo déggee bët dafa bari ay façon feebar. man bi ma tukkee sax laa xam ni bët du benn feebar rek wala ñaar wala ñett la yor. dafa jege bari feebar yu ko jege. yoo xamante ne ni da ngay dégg feebar bi la dal nit bi la dal man tension laa yor tension oculaire lañ koy wax xaw ma golokum. golokum bi ma defee recherche yi ñi nga xam ñu gën a jege xam nañ lan mooy feebaru bët nee nañ ma Europe ñoo ci tane loolu lañ ma mujj a wax. boobaak léegi nag wax dëgg yàlla. Mhm. maa ngi toog jàpp ci yàlla maa ngi am garab yi nag. Mhm. waaye wax dëgg yàlla. wéeruma de. mais mais Tunisie ñoom lan lañ la wax par rapport ak feebar bi la dal ndax mënuñ ko fa faj waaye aussi fan lañ. yaakaar ñoom foofu lañ ko mën a non non ñoom traitement a def traité. alors waxuñ la fuñ ko mën a juróom-benn weer jël garab yi juróom-benn weer bu garab yi jeexee nga ñëwaat garab yi maa ngi def garab yi mais wax dëgg yàlla tane laa def tane daal def naa ko moom. parce que hmm. ba may wax ci tele bi di yuuxu tiitaangee ma taxoon a wax ci télé bi yuuxu parce que boobu dem naa ba euh, xàmmeetuma werte ak bula. yëkkatil micro bi. booba xàmmeewu ma werte mm. ak bula. te ragal naa ni loolu fa mu doon jëm baaxul woon. Mm. Euh, fajoo naa sama xaalis parce que man maa njëkkoon di faj sama bopp fii nga fekk ni atelier ne que lu ne doomu xaalis liggéey naa ko taraanga bu nekk am naa ko fi. ba mm. samay doom di ci liggéey. kon man yambaruma woon. Mm-hmm. maa ngi doon faj sama bopp. mais bi ma demee nag ba nga xamante ni mu leer ma ne man mii fi mu ne nii sama faj dafa laaj ay dugg ay visa ki dugg avion ak yooyu. alors alors alors ci ci xam naa dinaa ñëw ci loolu mais hmm. Tunisie fan lañ la wax ni foofu lañ yaakaar ni moom la ñu war a mën a fajee feebar bi. amul dëkk buñ la wax Tunisie moom waxuñu ma demal fee ñu faj ko dañ ma ne daal ñoom traite laa ko mën a def bu ma demee 6 mois ma ñëwaat ñu xool. d'accord waaw 6 mois demal 6 mois def garab yi. bu 6 bi jeexee nga ñëwaat ñu xool ko loolu lañ ma wax. mais wax nañ la danger bi nekk ci feebar bi maanaam gravité bi mu ànd àndal. waaw xam nga nit du toog di weer feebaram. li ma man mooy wax ni gisatuma nañ ma jàppale ma faju loolu laa man mais euh, dossier médical bi moom wax dëgg yàlla du ma ko wone fenn furul ñu toog rek maak docteur wala koo xam ci ne war na ko gis rek ma jokk teg ko ci loxo mu liir ko rek ki lay doog a xamee li ma daal nag carrément. d'accord. du dëgg. Mm-hmm. parce que am na loo xamante ni que boo koy wax nii dañ naan day sóob ak day dóor. Mm. mais li na ci sama bët yi li ma yor ci dossier defe naa bari na de. d'accord. Mhm. alors euh, jamono ji suñu borom dem nga def ba nga dem ba dellu si fii nga xamee ni mooy Tunisie. say bët mhm. tamit par rapport ak na meloon léegi mën nañu wax ni. yokkute am na ci tane na yokkute am na ci mais mais mais li ma jaaxal Baye man yow bu ñuy jokkante dara ni doo ko gis te avant ngay dem aussi même remarque boobu laa doon def. <laughs> waaw xam nga tension. Ah. ci liñ ma expliqué. Mm. parce que damay wax ni suba teel gi. li may am suba teel gi duma ko am bëccëg gi ñu ni ma waaw. suba gi day fekk temps bi wàcc ngay doog a yeewu ci nelaw da ngay am bëti tension bi day wàcc mais loo gën a avancé ci bëccëg gi mu gën a fulu du dëgg kon loolu euh, loolu moo waral mu demee noonu d'accord mais mais mais yëg nga ni am nga tane yokkute boo xam ni quand même jëlee nga ko fële ci Tunisie. wax dëgg yàlla waaw waaw wax dëgg yàlla waaw parce que xañ na dem ñëw gi mooy dalal dalal na sama xel dem ñëw gi dalal na sama xel yaakaarloo na ma. mais est-ce que yaakaar bi nga amoon jamono ba ngay woo Sénégalais yi tamit ñoom ñëpp ñu indi seen solidarité. ngir mm. nga dem faju ji yaakaar bi nga amoon Tunisie aussi mën na jàpp ne am nga ko. waaw yaakaar xam nga yaakaar tukki faj feebar moom foo yaakaar yaakaaree ne fa ngay fajoo moom da nga fay dem rek. tout à boo gisee ko la fa yóbbu aaroon nañu def na lu rafet yóbbu ma Tunisie def na ci lim ci war a def lépp fayal na ma fa xaalis waaye moom sax bi ma ko nee biñ ma ko paasee téléphone ma ne ko grand. est-ce que man du ma dellu Sénégal rek jël client ah? mu ne ma non dañ lay faj ma ne ko mu ne demal ci nañ xool docteur bu gën a aay ñu jël docteur bi gën a aay Tunisie ñu yóbbu fa xañ na moo gën a aay ci lañ yaakaar ñoom. Mm-hmm. mu ñu yóbbu ma fa même chose la wax. moom mu ne la duñ la mën a faj traitement lañ la mën a defal nga dem toog jël garab yi si mois boo ñëwaatee ñu xool. d'accord kooku loolu la wax te jigéen la d'accord. alors ndax gannaaw bi nga xamee ni dem nga dem nga Tunisie tamit am nga ndimbal boo xam ne juddu woon na ci yenn kuréel yi nga xam ne ñoo boot artistes yi ak seen nga toog yu demee noonu. non non non man bi ma jógee Tunisie ak léegi sax damaa ñëw toog rek ni Thiel. bi nga fa nekkee jàppale wuñ la. déedéet nekk Tunisie di faju je veux gisuma kuréelu artiste gisuma ndajam artiste gisuma kenn. xanaa ay wax daal laa gis ay wax. wax daal laa gis mbel mbel ju amul ab bàyyi faa lii bàyyi faa lee te ñu ma gën a jege ñëpp xam nañu Samb dafa am problème. d'accord c'est clair ku ku la jege aussi jot a jëflanteeg yow dina ko xam. waaw. alors euh, ndax tamit mën nañu jàpp jamono ji bàyyi xam nga ni polémique la boo xam ni judd woon na hmm. jamono bi nga annoncé ni say bët neexatul bëgg nga ñu la dimbali aussi ngir nga dem bitim réew faju ji ay mbokk artist aussi ñenn ñi xawoon ñaawlu kàddu yooyu am polémique boo xam ni juddu woon na lan la ñu mën a jàpp sa digganteeg artistes yi nga xam ne dañ mën a général ñooñ nekk Thiès mais aussi nga jot a liggéey ak ñoom ñu mel ni Soleil Levant non xam nga jullit bu ne hmm. bu déggee ci moromum jullitam lu lu lu naka sudul na ko jege xool li muy jàmbat nii lan la ak naka la. loolu rek la. Uh-huh. mais bu fekkente ne que nag da nga caa wax loo xamante ne que maîtriser woo ko juum nga. man ñi ma xam xam sama démb xam sama tey xam sama jikko xam nañ ni Baye Fall mii du wax lu mu gëmul du wax lu mu xamul du ma tappale. du ma dugg ci ay dóor lu may wax lu ne dafa ne ci man parce que bu dee xaalis bu ma yàlla mayee wér rek mën naa ko liggéey du ma ñaan kenn du ma bu ma demee ba yuuxu rek. am naa tiitaange ci sama bopp. alors mais mais polémique bi si juddu woon nga baal ma suñu grand Cheikhou Gueye. ak hmm. euh, waa Soleil Levant ñoom di wax ni yëguñu woon quand sa feebar gravité bi ci nekk ak yooyu. yow nga ni yëg nañ ko ñoom it ñu ñaawlu quand même sortie bi nga xam ne aussi defoon nga ko di xam le ni bu jokkoo hmm. amoo seen diggante ak ñoom ñoom duñu la seetaan. waaw loolu mooy erreur bi ci am moom laa la wax ne la erreur de communication la. erreur bi ci kan ci yow wala ci ñoom. Euh, man li may wax. Hmm. sama wax concerné wul kenn ku dul sama feebar la concerné. ku ci tontu wax ci loo xamante ne ko waroo ko cay wax juum nga ndax man waxuma woon kenn woo kenn ci téléphone ni la wala ma wax la ci direct ci vidéo ni la kaay faj ma damaa wax ni ci vidéo bi nañ ma dimbali ma faju loolu moo ma gën a yitteel ci ka ñu ne ma diw yëg na ko diw yëg na ko ma ne ñëpp a ko yëg amul ku yëgul ni Baye Fall bëtam yi dafa laaj faj amul ku ko yëgul du dëgg mm. kon li ma bëgg mooy ku ma jege rek faj ma mais waxuma di kenn ciblé wu ma kenn ne na ma faj mais le fait que aussi jaaroo ci Cheikhou Gueye mu xam ko mu yëgee ko si média bi moom ci ay kàddu non non moom xañ na loolu moo ko ci naqari kon wala nga xam loolu moo ko ci moom sama rakk la sama waay la hmm. moom sama frère la hmm. sama rakk la sama waay la du dëgg moom xañ na loolu moo ko ci bëggoon na ma ñëw ni ko kaay faj ma kon certainement mais moom sama frère la sama rakk la sama lépp la hmm. am na am na yéene ci man man xam naa xolam am na yéene ci man xañ na erreur boobu rek mais xañ na loolu yàlla dana ko jeexal. d'accord ba ñun ñëpp ñu ko nawaat na ci jàmm. d'accord alors ndax après erreur boobu. ju saat ngeen waxtaan toog waxtaanaat ak yu demee noonu. yow ak Cheikhou Gueye ak waa Soleil Levant. loolu dana am loolu am du ñàkk mu am parce que moom xamante nañu du Soleil Levant moo boole yàgg nañu xamante hmm. sama xarit la du ay théâtre gi moo ñu boole. yàgg nañu. d'accord démb ak bërki démb. Hmm. xam nga lu ëpp ñaar fukki at dafa yàgg. du dëgg. Hmm. kon xañ na bu ñu toogee waxtaan man ak moom rek réeroo bu amoon dana dañ. dana am. jàmm dellu si waat. d'accord ndax gis nañ fi ñu yanante ay yet taalante ay bomb réew yi guerre sax dañuy jubóo. mais waxtaan waxtaan te ñun géeruñu waxantewuñu lu ñaaw mas ngeen a dégg ma wax ko lu ñaaw. musuma wax kenn lu ñaaw. mosu leen a dégg ma attaqué kenn wax ko lu ñaaw bu ma mënta wax lu rafet rek damay noppi te ñun ñëpp ay benn lañ du ñu ay noonu. du dëgg d'accord. alors ndax ginnaaw bi waxtaan aussi jot na am seen diggante ginnaaw bi nga. xam non non xam nga man damaa tukki woon nag. d'accord dama te damay doog a ñëw mm-hmm. léegi comme damay doog a ñëw nag bi ma ñëwee yàggul. Mm-hmm. Dakar sax nag demaguma fa. xam naa bu ma demee Dakar dinañ gisante bu soobee du téléphone du toog du yooyu yëpp certainement aussi du ñàkk par téléphone aussi war ngeen ci mën a waxtaan xam ni waaw moom la wax ah. mu ma fi woon d'accord comme damay doog a ñëw mm-hmm. insha allahu rabbi dinaa dem Dakar yi ma war a dox yëpp ñu dox ko très bien alors bu weesoo loolu xam nga ni du moom kese bari na yeneen ndaanaan yoo xam ne aussi ñoom ñu ngi ñu ngi fii si Thiès. Mm. ginnaaw bi nga demee ba ñaw ban retour nga am ci ñoom tane nga bay Fall noo def yu demee noonu sa relation ak artistes yi nga. xam ne da ñaari artistes laa gis ñu seet si ma ba ñett Waly Sène ak Cuuj Naajo ñëw nañ seet si ma Sil Dramé ñëw na seet si ma Baye Ndiame Sène ñëw na seet si ma waaye gisuma fi keneen. artistes yi nekk Thiès ñeent waaw xaj na nag am nañu yéene bi dañoo wala yëguñu ni ñëw naa bokk. xam nga tam danga wax nit loo xamante ne que tam euh, du li nga ko war a wax. xaj na yëgu ni ñëw na waaye xaj na bu ñu xoolee vidéo bi xam ne baafal ñëw na dinañ ma seeti waaye gisaguma leen wax dëgg yàlla ñooñu daal sama nit ñu ma jege lañu ñëw nañ seet si ma. alors am ñeneen ñu doon yëkkati ay kàddu di wax ni Baye Fall li muy def. seen c'est vrai que li muy def rek mooy. Mm. Euh, benn euh, yalwaan déguisé maanaam bëgg ñaan wala bëgg def dara aussi moo taxoon nga yëkkati propos yooyu waaye tollu woon quand même à ce pour war a ñaan ndimbal pour dem faju ji loolu lan nga ciy tontu. waa dañoo waroon nañoo ma wax ma wàll ma jox leen li ma dal. ku naan Baye Fall day yalwaan déguisé wu. danga may jege rek bu ko ma mënee wekk sama bët yi ma abal la ko rek ay minutes rek nga xool ndax. damay tappaleem damay fenam déet. Hmm. wala nga wala nga déplacé wu ñëw rek xool dossier médical bi ma yor ndax damay tappale wala damay nàngam wala damay nàngam. Hmm. xam nga ñun lan mooy suñu problème. di wax nit ci palaasam wala ngay wax loo xamut wala ngay kàll wala ngay liyaar gis nga nit euh, booy xool sax bay xool ñu bare ngi wax te xamu maîtriser wuñu li ñuy wax man boo gisee bu may bu may wax hmm. samay wax ma man koo wax ren gi fàttali ko nit ñi déwén fàttali waat leen ko déwén jéeg dafa fekk ni que li may wax dama koo xam toog ci mais waxuma ko ci mbel mbel mbel comme ça nii rek déedéet mm-hmm. man ba ma kenn déggagul dukaati laa doon dawal moto yi gën a seer ci Afrique laa doon dawal yàlla wëccu ma woon maa ngi doon liggéey sama liggéey doon ko def normal doon ci am li ma ci bëgg am lépp doon solu ñi ma xam dëgg xam nañ ni vingt ans ci ginnaaw daanaa sol lu mu dee dee trois cent cinquante mille francs ci sama jëmm ji yaa ngi dégg baax li ma la kon man du ma nit koo xamante ne que yambar laa woon deltu ma ginaatu fii dëkk bi kenn yebu ma fi te boo defoon micro territoire nga laaj kan mooy Baye Fall ci tëndi di travail lañ ma xam ci liggéey lañu ma xam kon bu ma demee ba amatuma yaakaar ci li may def xam naa ni bët mm. mooy doomu aadama d'accord yaa ngi dégg baax li ma la mm. man pour ma déplacer wu dem fenn dama koy xalaat ba tax ba fii may wax yow looloo ma tey dem Dakar fu may dem di fa déplacé wu di fa dem dama koy calculer di ko teelu di ko xalaat. d'accord te bëgguma dem ci kër kenn di ko sonal wala ma koy indil jafe parce que bët dafa. dafa sensible dafa garaaw Baye Fall mooy lépp c'est vrai c'est vrai. Mm, alors du affaire fo. boo toogee ci sab saal rek di wax ak wala ngay toog di ñu teg la micro ngay mbel mbele di wax rek dafa fekk li ma nekk li ma dal rek dalu la. d'accord. d' accord alors mais mais ndax lii mënuñ si jàngee ni vraiment dafay wane ne artistes yi Thiès yi d'une manière générale bennoo amul mais aussi day mel ni aussi xool yu bennoo wunu parce que pour appuyer Baye Fall. man li ma jàngal naa ne normalement. sama bët ma jàngal bari na. d' accord jàngee naa parce que yàlla dana la teg nattu pour xam yow ban yaay ban doomu aadama. Hmm. yàlla dana la teg nattu pour nga xam man li ma jàng ci sama bët yi bari na. am na ñoo xamante ne que sama lu ma masaana yendu ci man fanaan ci ñoom dañuy rocceeku. parce que xam nañ ni sa waay euh, mooy loolu quoi. ñenn ci say nit yi démb bàyyi nañ la. waaw parce que ñi ma war am na ñoo xamante ni que xam nañ ko buñ ma jàppale woon kenn du ma dégg may wax. te nitu démb lañ. wala da nga jàppoon ni nit lañ samay woon samay nit lañu waaw. ñoo xamante ni que. Mhm. bu ñu bu ñu ma bu ma jàppale woon kenn du dégg ma wax. te bu ma mënoon yoroon lu ma denc kenn du dégg ma wax. parce que xam naa wax bi ma wax doole ji mu am. mais dañuy affiché ando di la dawalal kabooy dëmm rey la jaale la ànd ak yow defe nga defee ne dañ laa yéene jàmm fekk bu ñu la doon tër di la rendi euh, ñu rendi la doo du ñu wuti ko lay rendi ñoom ñoo lay rendil seen bopp loolu xam xam naa ko ci sama bët yi du dëgg mm-hmm. weer yi ma takk nii Iran ma ko jëndal yii ma takk ni mm. téeméeri junni ak ak fukki junni ak juróom benn junni ci sa kanam mm, absolument ci sa kanam la ma Iran fayale woon weer kon xam nga yëf yi du yëf yi fo weer yi cinq cent et quelques mille du yëf yi fo te yoruma yenn weer dog yor naa yeneen ak yeneen ak du dëgg te damaa yaakaar ne xanaa nit du takk ci ay kanamam weer yi yuy jar ay téeméeri ju nekk nangam te dara dal ko te weer sax bu bu ma tension bi jàppee amul njariñ ci man bu la bët yi sonalee. waaye jëriñ lu bari ma dindi ko dindi ko sax li may gis sax dindi ko moom mooy gënal. d'accord. kon yëf yi du fo. d'accord lu lu ñuy fooyee. alors Baye Fall ñu ñu xamoon la si culture aussi ndax jàppoon ni aussi certainement bu dul euh, acteurs culturels yi nekk Thiès aussi ministère wala ministère de la culture normalement ñoom it waroon na mën a am appui boo xam ne aussi waroon nga ko wut si ñoom lan moo dox sa digganteeg ministère de la culture aussi ba ñoom seen appui ñëwul ci yow. man daal li ma war a def def naa ko. as gor daal dem na ci da gor su dem ci pénc laa parce que mënoon naa koy di ko regle ci suuf combaan mënoon naa di la gis yow wala may dem di gis nit ñi ci suuf loolu def naa ko ba sonn parce que man bu njëkk weer yi ñu ma doon bindal ay cent trente mille la doon jar ñi ma ñi ma ko doon jaay xam nañ li may wax. Mm-hmm. am na benn clinique bu nekk bu nekk Castor du ko fàtte clinique Masor caam maa ngi koy nuyu bu baax Pape Massar Thiam dem na ba sax bu ma ñëwee du ma yor lu ma daggee ticket bi daf ma koy may dégg nga baax li ma la wax. Mhm. di ma dimbali. Mhm. bindal na ma ci benn waay bi ñuy wax bàmba Bamba muy jaay ay verre Bamba mi ngi en face école Saldia déglul bu baax li ma lay wax. Mhm. jaay na ma ay weer yi ma njëkk a jaay quatre-vingt mille la ma ko jaayee weer yi ma ca tegu cent trente mille te li ma lay wax nii dem na presque deux ans ci ginnaaw. d'accord. loolu rek dama doon am problème mu def ko. d'accord. dafa mujj bu ma ñëwee consultation paa bi dafa ma doon wax na ma Baye Fall non boo mul xaalis sa bëti léegi mu yàqu. d'accord. te xamoon na loolu. te man xam naa ko. parce que loo xamante ne que saa boo xëyee muy gën a wàcc gis-gis buy gën a wàcc saa boo xëyee fu mu jëm baaxut. te man yàlla moo ma suturaal lii sax mais am na ñoo xam ne maag feebar bi ñoom la daalandoo ñoom gisatuñu. ndax dégg nga baax li ma la mhm. ndax ñàkki moyen d'accord am na ñoo xamante ne gisatuñu dara dara dara dara te man fii nii sama bët a ngi xuuy am na ñu gisatul dara ba dañ may woo téléphone ni dégg nañ parce que ñu bari dañ ne Baye dem na Tunisie ba ñëw wéer wér na. di la laaj ay conseils démb rek am na ko ma woo. Mm. di ma laaj ñi ma man li ma jaaxal mooy ordonnance bi seer na te fi mu ne nii yoratu ba ñi ma koy jëndal sax xanaa danañ dem ba découragé wala ah Baye Fall waaw dégg naa wér nga foo fajo d'accord ma ne leen wéraguma de maa ngi tànnee nag waaye wéraguma ñu ne waaw ñun de or est ce que ñun ni ñu tuufaay bii def noonu la lay def parce que man damaa dem ba mujj gi man xanaa est ce que représenté wu ma sax ñu gëlu comme dal ñi am sama numéro ñëpp ci YouTube bi dañ may woo téléphone di ma laaj ay ay renseignements. ci golokum ci golokum waaw. parce que ñoom ñëpp nee nañu gisuñu fuñ ko mën a faje ci Afrique mu gisuñu fuñ ko mën a faje ci Sénégal. d'accord très bien alors Baye Fall bu bu weesoo loolu ndax jàppoo ni quand même lii yëpp dafay wone ni Thiès ak li mu représenté ci nekk capital artiste Thiès yi seenug bennoo ak seenug ànd doon benn ak li leen dajale man tuuti naa ci li koy def. mais dafa war a am. parce que capitale la ci culture dafa représenté lu bëree bëri am na ñu jiite loolu. alors am na ñoo xamante ni que. Mhm. am nañ fi Arcos am nañ lépp bërki dem bu ñu euh, journée mondiale de théâtre invité nañ ma mais mënu maa dem damaa xëy tension bi daaneel mais am nga ci xalaat lan mooy problème bi ba nga gis ni vraiment manqué bennoo bi ah. dafay faral di am manqué arcos de ngi fi tey itam magi artistes yi ñoo ko jiite ñoom Gilles Dramé nga fa Moodu Pousse Pousse ñoom a nga fa ñoom Paco gaa yëpp a nga fa arcos mm. ñëpp nga fa mm. man daanaa dem ci lépp lu ñu daan def mais comme wéruma mm. yu bari du ma ko mën a demati mais wax dëgg yàlla man bi may wér di man dafa daan indi sama doole indi sama lépp d'accord euh, festival yi ñu fi daan organiser Euh, am na ci am na guddi koo xamante ni tuuti sama sëy tas ci benn festival bu ñu demoon parce que Bella Sène laa àndaloon ñu jëlee woon ay artiste ay caméraman ay nangam. Mm-hmm. Mm-hmm. yooyu yëpp man dama ci daan oto laa ci daan indi def ci la ma ca war a def lépp participer ca def ci lépp. fii cees bokk naa fi ci artiste bi fi njëkk a siiw 30 ans ci ginnaaw. xam nga léeg-léeg nga ko la def naa 10 ans de carrière def naa nangam def naa nangam man maa ngi ci 30 de carrière. Mm-hmm. fii ci kilifa yi laa bokk ci kilifa yi ŋànk aar bi man ci laa bokk ku ma xam ci aar nga ma xam ku xam Baye Fall xale yu bari màgg nañ fi yori jabar yor ay sikkim gis nañ ma ma war sama wele bi wele bi bala ngaa dem dinaa la ko won ñu bari ñëw nañ fi wonuma leen ko waaye je que Sénégal yëpp xàmmee nañ ko waaw waaw waaw <laughs> bala dem ma won la ko d'accord incha allah euh. bala ngaa dem dinaa la ko boobu bi ma koy créer tax na ma xam tubaab yu bari tax na ma xam lu bari ci àdduna bi tax na ñu bari xam ma ci àdduna bi. d'accord te boobu lu jiitu wele bi ay tableau laa doon defar. li tax artistes yi jubawuñu moom. Mm. loolu ci ñoom la. mais mais mais bu ñu nee Arco aussi am na loo xam ne Arco représenté na ko ñoom ñooy kuréel yi nga. xam ne ah, samp na leen ci réew yi alors xam ne ñu war a taxawu artistes yi ak it li nga xam ne moo ah. jëm ci seen social ak yooyu. non ministère de la culture. Mm. ñoo war a avancé bu baax ci soxla artistes ñu régler ko xool lan la artistes yi jàmbat ñu de régler ko mais du président bu fi ñëw ñu ne dana régler problème bu artistes yi rek président booba jàll beneen ñëw ñu am yaakaar ci ba bay remplacer ba fi ne déedéet. Mm. ki fi ñëw moo war a def ba fi mu yem ki ko remplacer def ba fa mu yem bu ko defee ñun suñu mbir di dox. d'accord. parce que ah. comme parce que tey li may jàmbat nii bu fekkoon ne kon ministère de la ministère de la culture dugal na ci loxoom. Mm-hmm. kon léegi coow lu jeex. c'est Bayfal foofu sax laay profité ma laaj la dogguma la ki yor culture bi fii ministre de la culture fii. Hmm. Euh, xam nga turam. kan la. ki ko jiite. ministre de la culture. xamoon nu mu tudd. non kii laa xam docteur Ndiaye laa xam. ki yor <laughs> ministère bi ki ko yor ki yor ministre de la culture. ministre de la culture alors xaw ma turam. te yaa ngi yëngu si culture. wala yaa ngi doon yëngu si culture parce que. Mhm. Euh, la gënoon a rafet te gën a jaadu bu ñu amee seen benn doom bu nekk ci aar bi. te yaakaar naa man empreinte bi ma def ci Sénégal defe naa ni duma ko ñu kii mooy keeti léegi. kon man lu mu dee dee waroon na maa dégg ci seen ci seen ci seen ndéey loo xamante ni que waroon nañ ma jàppale ci benn tànk wala ñaari tànk sax. tout à ma xam ne lii ministère de la culture moo ko fi def. très alors Baye Fall euh, bala maa jeexal dinaa la laaj aussi ndax ginnaaw bi nga xamee ni euh, tàllal nga loxo ñu bari ci sénégalais yi tamit ñu bari ci ñoom aussi doon métit lu vraiment li nga xamee ni yaa ngi doon dund. Hmm. ndax rëccu nga lu taxoon nga génn dem tàllal wala ngay dem. ci Sénégal ngir épouser li nga xam ne mooy sa feebar. rëccu ma ko ànd ak critique yi si judd yëpp rëccu woo. non non non rëccu ma ci dara. yéex a def gi lay rëccu parce que dama ko yéex a def parce que ba ma ko defoon deux ans ci ginnaaw trois ans ci ginnaaw. xañ ne koon yëf yi du yegg si fii mais may topp sama ngor rek topp sama jom rek topp sama fukk rek naan naa taqale naa di ko xaalee ba mu àgg ci niveau boo xamante ne mënatuma dem yéex a def gi lay rëccu mais rëccu ma dara ci li ma def. très bien d'accord du dëgg. Mhm. parce que bi ma ko defee am na ñu yëkkati seen fukki dërëm jox ma am na ñu yëkkati seen ñaar fukk jox ma am na ñu ma jox seen juróom am na ma jox jox seen fukk. Mhm. te xamuma leen. du dëgg. kon amu ci dara lu may rëccu. très ndax rëccu nga carrière bi nga xam ni jot nga ko def ci culture jot nga ko liggéey aussi ci li nga xam ne mooy théâtre ak comédie d'une manière générale. déedéet rëccu nga lu tax nga def nga doon def li nga xam ne mooy art. rëccuwuma ko. d'accord parce que xam nga lu tax. Hmm. man gëm ni. Hmm. billaahi walaahi taalaahi. Hmm. gëm ni waaw oto bi day bondé waaw ñu def gis bonde ñu ngi koy nuyu baax a baax suñu papa Sow continué ah <laughs> euh, alors euh, waaw euh, waaw. Hmm. yaa ngi dégg. Ah. rëccu ma dara dara dara ci li ma ci li ma weesu. Hmm. parce que xam nga lu tax. Hmm. am na ñoo xamante ni que bégal gi ma leen di bégal tax na man ma intéressé leen ba bi ma amee sama soxla. d'accord xamuñu ma gisuñu ma dégguñu ma waaye jël nañ seen alal jox ma. d'accord. loolu neex na ma ci. Mm-hmm. te it gis naa ku ma jël engagement yóbbu na gis naa koo xam ne di ma jëndal ay gar di ma jëndal garab yi. d'accord te ñun ñëpp aar moo tax ñu ñu ndokkale loolu ak yuuxu gi ma yuuxu d'accord très bien mu yuuxu loolu duñ def loolu très bien ban yëg-yëg lay def ci yow Baye Fall nga toog ba tey suñu borom tënk la ci lu baree bari ci li nga xam ne ni mënoon nga ko def si culture léegi mënatoo ko def moment boobu nan nga koy dundee sant yàlla rek di bilaay man ko gëm yàlla laa nag ni may gis nii parce que nattu Cheikh Ibra Fall nee na nattu moom la nit ñi gën a bañ mais ku ko yàlla teg rek am na lu mu bëgg ci yow mm. nattu mhm. moom la nit ñi gën bañ waaye ku ko yàlla teg rek am na lu mu bëgg ci yow te yàlla mën na ko teggi nag yàlla mën na ko teggi mhm. woyofal ko ba mu woyof ba nga xamante ni que euh, parce que yàlla mënul ni man mille 2022 laay dee ma génn ko c'est clair ak loo ma ñaanal ñaanal loo ma dimbali dimbali du ma génn mille vingt 2022 mais bu yàlla nee damay dama fiy dund cent 140 ans kenn mhm. mënut te tee ma dund 140 ans du dëgg kon li yàlla dogal ci man sama jëmm ji nangu naa ko li ma ci ñaawlu mooy. ñi nga xamante ni que rek bëggoon naa gis ñu jege ma rek te jege wuñ ma loolu rek laa ciy ñaawlu mais amul leneen lu ma ciy ñaawlu. loolu moo la si gën parce que xam naa ne kuy wax. Hmm. dangay ngay mbel mbele di wax rek waaye buñ jàkkaarloo doo wax. d'accord. wala ngay bañ ko la mere xam nga ñun dañoo am benn problème bu ñu am ci aar boo xamante ne que kilifa yi ngànk aar bi ñu jóg ñëpp ñu ci bari. du ñu wax ko te dëgg. Hmm. wala dañuy bañ ko leen mere. parce que bu làmb amee problème magi làmb yi ñooy wax. bu théâtre amee problème magi théâtre yi ñoo war a wax. très bien c'est clair surtout loolu aussi. du dëgg. mais ñu bari dañuy wax la ca ginnaaw lee. Mhm. te wër sa demee noonu. nit da ngay wax sa aqulaayi taalaa. très bien man bu may kaf sax damay kafe dëgg parce que bu ma meree man ci jàpp. très bien alors mais Baye Fall def aussi ngay père de famille am njaboot goo xam ne aussi euh, yaa ngi leen euh, yaa ngi leen di xalaat souvent am liggéey boo xam ne aussi samp ko ngir njaboot gi ngay xalaat ci li nga xam ne suñu borom teg na ko te ba léegi nii suñu borom teggeeku ko loolu tamit boo koy xalaat lan lay def ci yow. waaw xam ñàkk liggéey man ma gëjee liggéey léegi man na trois ans man bi ma gëjee liggéey ak léegi mat na ñetti at te damaa bari soxla bari yitte bari soxla ami bëgg-bëgg pendant trois ans ngi ni liggéeyuma mais teewul maa ngi koy maa ngi maa ngi jéngu di dem ak di dem dafa am foo xam ne boo fa xasee toll ci àddina euh, ay taqale yoratu la maa ngi yor njaboot maa ngi te leer na leen xam nga ni fi mu ne nii guddi yi ñu toll nii dara doxatut nan lay def booy xalaat njaboot gi aussi ngay toog souvent aussi di dégg njaboot gi ngay xalaat xalaat ci loo xam ne aussi meloo ko woon démb tey suñu borom teg la ko aussi metti rek barke maam Sara Fall metti rek mais da ngay xam ne yàlla moom li mu dogal dara mënu ko tey am da ngay xam ne suñ borom mm. moom rek mooy suñ borom te nattoom dama siiw rek mu teg ma ko mais teg na ko ñoo xamante ne que gënuma leen day gënuma leen bàyyi très am na ñoo xamante ne ay personnes inconnues yoo xamante ne dañu feebar kenn xamu ko. Mm, mais man nag euh, da ko yàlla dafa teg natt koo xamante ni que euh, siiw na. d'accord très bien alors Baye fan du ñàkk aussi jamono ji am nga loo xam ni moom moo la war. ci ngir euh, suñu borom teggi li nga xamee ni teg na la ko fan nga yaakaar ni jamono jii foofu nga war a mën a dem wala fu ñu la jox xalaat ni boo fa demee suñu borom mën na def jàngoro bi teggeeku ci yow ah! si ñi ma jot seen résultat maa ngi waxtaan ak benn soxna boo xam ne mi ngi Amérique dañu ma jëkkëram ñoo bokk benn feebar maa moom Gambien la jëkkëram Gambie la jógee moom mu lëjjantil ko mu dem Amérique nee na ma Amérique Baye Fall tane nañ ci golokum parce que da nga mën a def say activité d'accord ñoom seen faj da nga mën a danañ la mën a dimbali ba nga def say activité xam nga tam loolu ba ba tane na du dëgg maa ngi ànd ak saaxo rek tey bi ñuy dox mm-hmm. ma mbëkk benn tableau boo xam laaj ko mm-hmm. laaj ko lu ma ko wax bu ma mbëkkee tableau fi ñu ànd di dox mm-hmm. jóge seen rek di ñëw boobu naaju jàpp na ma te bu la naaju jàppee ni muy def maag yàlla dong ko xam ma mbëkk benn tableau pano yooyu heureusement gaañuwuma parce que man bu may dox dama dama ragal léegi sax bu may dox ragal naa sax dox alors bu yaa may wax ni ma bëggatoo sax yëkkati message di wax li jëm ci ci sa feebar wala lu jëm ci li nga xam ne noon nga war a fajo mais je pense que da nga nekkoon ambassadeur xam nga wax naa la léegi euh, fi mu ne damaa àgg foo xamante ni damaa sës àgg foo xamante ni ko mu ñu faj ma bañ maa faj rek garaawut pourtant sénégalais yu bari dañ jàppoon ni Baye Fall jox nañ ko loo xam ne aussi moom la war a mën a fajoo quand même Baye dem na war na traité wu ba war na wér aussi looloo war a sax rédaction bi seet si la aussi xam nga àddina ñu bari dangay ngay benn affaire duñ la ko yéene yàqkat yi dañoo bari dangay dem commencer ñu gis ni yow mii kat lii de mën nga ci jaare mm-hmm. waaw parce que bu ñu seetaanoon sénégalais yi ñu jàppale ma ci mm-hmm. benn système boo xamante ne que bu même bu ma dematul liggéeyatul danaa mën a am mais xam nga nit kuy kuy soxla man lu mu dee dee dee dinaa fere journée dix mille francs loolu loolu. weer sa feebaru bët yi rek. surne dix mille francs ngir samay soxlay bopp rek. d'accord bët yi. Mhm. feebar bi ay garab rek laa mën a jënd. garab rek. tout à laa mën a jënd. Mm-hmm. te fii ma wax ak yow ni war na maa dem ñu consulté waatal ma ko xoolaatal bëti xoolaat bëti. Mm-hmm. fii may wax ak yow ni war na maa dem ñu defal ma consultation xoolaat bëti lan la laaj. parce que bi ma jógee Tunisie ak léegi garab yi jeex na maa ngi jël garab am na soxna su may jëndal ay garab. koo xam ne bëggul sax ma tudd. fan fan ngay demee consultation bi Tunisie ngay ngay consulté. woo léegi wala fii non fii ne kay Dakar. Dakar Tunisie moom lañ ma wax wax nañ ma ko. Mm-hmm. alors ñu doon am mbégte bay Fall di la mm-hmm. masawuwaat di la encouragé bu baax a baax di ñaan yàlla moom rek moo ko man mm-hmm. yàlla yàlla teggi la li nga xamee ni mooy gàllankoor bi mu teg sa bët yi jàmm amiin waay barkaal ko amiin yaa rabbal aalamiin maa ngi sant ñëpp tam mm-hmm. di nuyu koo xam ne ñi nga xamante ni gatam tam tudd ma woon seen tur te jàppale nañ ma ku ci mel ni a Gueye jàppale woon na ma bi ma soxlaa ku ma jàppale ku mel ni Baara Gueye ak xabbaan mbay ñu ne ko gën koo xam ci xabbaan géy ñoom jàppale woon nañu hmm. xabbaan mbay ñu hmm. gën koo xam ci xabbaan géy di gërëm baara géy di gërëm muudu mbay seen mag hmm. parce que ñooñ dañ may jàppale di nuyu di gërëm bu baax kuli jéey ak seex jéey ak seen yaay mère awa seex bi moo amee jafe-jafe ñoom tam jàppale woon nañu ci ñooñu waa Cees lañ uh-huh. taala la monsieur le maire maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax di nuyu ñëpp ñi nga xamante di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne que jàppale na di nuyu waa Sénégal yëpp congaan ndax Sénégal wax dëgg yàlla bëgg nañ ma Sénégal yi bëgg nañ ma te xam naa ni yéene yi yëpp ñi ma yëg ak yi ma yégul yëpp kontaan naa ci ñoom mais nag congaan mhm. dafa am loo xamante ne que maa message bi bëgg naa nga jàllale ko yow xam nga li ma lay wax. incha mhm. ku mel ni première dame Marème fay Sall. Mhm. kooku moom xam naa ni ndax li muy def ci réew mi yëg naa ko. absolument fondation boobu mu yor. gis naa doole ji mu am. Mhm. gis naa tam ñi muy jàppale. tout à fait kooku moom bu ma déggoon appel am moom. non cas social moom comme ni ñu koy faral di waxee moom yaakaar naa ku ci ku ci sawar la. je pense que message bi aussi dina si jot incha allah. moom coom ngaan bu ma mhm. déggoon appel am rek parce que découragé naa nag du la ko nëbbu. di nga ko jot incha allah man découragé naa mais waa fondation Servir Sénégal moom mhm. seen appel laay déglu. incha allah parce que ñoom defe naa defe naa ñoom parce que ndax dafa am loo xamante ni combaan gouvernement. Mhm. moo ko man dafa am loo xamante ni combaan gouvernement rek a ko man mhm. parce que gouvernement mooy nay ndey ñëpp. alors message bi dinaa ko jox oustaz Modou Fall kenn la ci ñi nga xamee ni tamit wax dëgg yàlla suñu borom boole na ko ak ki nga xamee ni mooy première dame oustaz Modou Fall dina jotal message oustaz Modou koy bëggee bu baax ñu dina dina hmm. jotal message bi première dame incha allah Baye Fall ñu ngi lay ñaanal gàllankoor bi yàlla may la wér bu baax